man xar bu ma gis te ma fekkee ko mu nekk dëgg si man euh, war na mat ay quatre ans cinq ans Scat Urbam la loolu sama benn grand boo xamante ne kaw ba la nekk bon ci famille bu baax la nekk bokk fii sax famille bi maam ñoom seen sant Tall la Tall pour te dire grand bi yor jabar ju baax billaahi walaay talaay bon am ñaari doom ak moom nekk Angleterre bon jabar ji dafa accouché rek

te bobu uh, tu woon na ma nak trop trop trop trop trop bo moy son premier jour bo moy son premier jour moy gis ku dee ku xaru ku dee bo moy son premier jour ma koy gis non affaire bi euh ñun dañ cey tomber rek parce que moment bobu ñun dañ don tok ay noctam dañ don tok di def ataaya bo presque ba 5h du matin ñu tas ku nekk dem mais bañuy bañuy ba ñuy tas maak sama gars si lañu dégg ay yuuxu bañ déggee yuuxu yi ñun si lañu daw dem fekk nekk rek paa dafa pendre boppam si benn garab. nit am na mooy yoo xam day xaraloo nit te nit xam ne dina dëkk ak yow wax la loo xamante ne di nga xaru ba te pare ñoom du moom nangoo wax yow lan la wax nga xaru si nangoo jaaraat day am fii Sénégal fii nii. nit dina xamal lu ñaaw loo xam ne bëggoo xam ko mu wax ko nga mu jaarale ba xaru moo xam sa famille wala sa yaay doon ko nëbbu def ko wala koo xam ne sa mbokk bu la jege la kon xalaatul ci lu moom lu ñaaw mu def yooyu noonu mbetteel boobu noonu tamit dina téye la nit mu xaru. xam nit tey jii nit bu demee ba tëddee yaayam yaayam xam ko moom mu xam ko mais nit kooku dootul xaja xajatoo si xajatoo dootul xaj si population am day day xaru day xaru parce que moom day gis ni solution boobu rek lay gis xaru parce que foofu yàlla suñu borom day gàttal sa xel sax xaru rek ngay gis. damay dégg ay cas ak problème mais man musuma xalaat benn problème bu war a mun a xaruloo nit quoi. certes nak day metti mais bo xamé yalla ak ay mbiram ak ak ay dogalam mom do xaru ben yon parce que sallalahu alayhi wa sallam gën gi mindeef mo gën ko yalla sak te limu dund ci gaw suuf manam mom nenañ amul vie privée parce que dañ wara jang ci mom roy ci mom kuy dem bay tak biiram di jël ay xéer diko tak ci biiram pour julli amul lumu lek té te gën ci mindeef yi ak yenen ak yenen ak yenen yu ñuy netali ci dundam koku mu dundu yalla ndem mo fi gën mu dundu lool yépp deful dara ñun ñu wara xaru non loolu ku ko def yebaate la. comme yu mel noonu xabtal la koy def wala ngay xëccoog nit place mu soxore la xabtal la xërtal la nga dem prison ci affaire yi mu mbëlbati ko jël sa place yooyu da koy def. li ko gën a waral nag mooy li ma la njëkk a wax ngëm la foi soit nga nekk catholique wala juif wala musulman yaa xam looy looy mais yàlla jiital ko ci sa lépp waaw boo jëlee sa lépp teg ko ci doomu aadama doomu aadama yi war la nga nga nga nga xaru mais boo jiitalee yàlla à chaque fois solution day am. parce solution la ko amul solution moy xaru manam ko dem ba sës mais bo amé solution xamné ne nga fi dess ah yalla moy borom lepp moy artiste bu mag bi na gay bay xel lolu ak tay moment bu toll ni ak dekk bi tay aduna bi num nexé yow amo lenn lu nga di même bu la dana metté sax mais nga ñew nga waxtaan ak ku la jege moo ngay xaru parce que tay nga xaru tay bo démé kan nga kay layol suñ borom waaw. kon dara jarul ay xaru li mu dund fii ba xaru yëgul ni day doog a tàmbali souffrance bu gën a tar biir bàmmeel benn parce que boo xaroo nee nañu si biir bàmmeel dangay dund sa desitu dund li nga war a dund ci kaw suuf da nga koy dund ci biir bàmmeel imaginel kuy nooye à l'air pur ñu war la dugal ci biir bàmmeel nga nekk di nooyu suuf tar-tar beeg bàmmeel ak jafay xew kooku bu xamoon lool est-ce que dina xaru mais suñu problème moo weesu foofu noonu yëpp ñun dañu mu euh, connaissance manam xam-xam au vrai sens du terme parce buñu xamone ñu yenn yu ci bari duñ ko def mais nag xaru mom wax deug yàlla soxna si ku ko def mom dam lay ree quoi. wara gaay ñu wara a bàyyi xel quoi ci yoy yeb quoi ci doxine ci jëfin ci waxine xama set quoi set. billahi wallahi set du ay affaire de sangok yoy kessa de dedet nit bo seté xoolal seytaane du la ñame billahi wallahi ta'ala te seytaane bu la ñame boy do xaru. לא אכלנו פסטה, גם בז